di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu di gërëm suñu sëriñ Mawlana Cheikh al Islam Alxaaji Ibrahima ngi nuyu mboolem waa jotaay di ci jiital suñu bàyyi Cheikh Mouhamed di nuyu imaam yi di nuyu mboolem muxaddam yi fi teew ak soppe ak zikarkat yi yëpp ñu ngi leen di nuyu di wax asalaamaaleykum wa taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla bu baax bi ñu daje tey ci guddi gu tedd gi nga ne guddi gu rëy la ci ñun guddi gu tedd la ci képp koo xam ne Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu moom mooy sa sëriñ guddi gi nga ne ci la eggee ci maqaamam bu kawe boobu nga xam ne kenn xamul ko ku dul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam baada shahrin wa layaalin irtaqa ila maqaami al-aziz al-muntaqa maqaami al-maktuumi an kulli al-wara siwa nabi maa waraahu wara maqaama boobu nga xam ne mooy maqaama bu tedd nga xam ne ci la eeg gannaaw muharram mu amee weer ak ay fan ci la Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci maqaamam bu kawe boobu nga xam ne kenn xamul ko ku dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na ko kutimta fi xadaraati alxaqi laysa siwa almuxtaari yadrika laa yasun wala amalikum nëpp yëpp nañ la ci pay yàlla yi yow Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nga xam ne amul kenn koo xam ne ku lay xam la du malaaka du nit du yónnantu ku dul yónnantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Tidiane yi moom radiallahu anhu nga xam ne moo tax tey képp koo xam ne ak Tidiane nga rek yaa ngi màggal bu diggu màgg gi nga xam ne amul sikki sàkk ne bu téeg nangu ñaan la waaye ji defee ci barab boo xam ne li suñu waajur wax léegi fii mooy xol mu dina bàyyi te muy dëgg bi mu waxee loolu rek dama toog di vérifier xol ci jëmmu doomu aadama fan lay fan lay nekkee ci nit ma gis ne jëmmu doomu aadama xolam càmmooy lay nekkee dama gis ne Cheikh Ibrahima Niass mi sañ ci Medina bu toogee ca néegam ba jublu penku daaru raxmati ci càmmooñ la koy nekkee kon fii buñ ko tuddee xooli mi dina bàyyi kon dëgg la te bàyyi ko wax comme ni mu ko nettalee ne bàyyi wala doon noonu kon loolu amul sikki sàkk ci xooli dina bàyyi kon lañ toog daaru raxmati moo nekkee mi dina càmmooñ kon buñ toogee di waxtaanee Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu di fàttaliku guddi gu màgg gi nga xam ne suñ bàyyi suñu sëriñ muy Cheikh Thierno Hassane Dème nga xam ne tey képp ku koy màggal tey ci Sénégal rek yoon wi yëpp moom lay ñeel ndax moo ko njëkk def lu tax ngir cër bu rëy bi mu am ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ba bàyyi nangu loon ko cër bi nga xam ne am na ko ci Cheikh na Tijaani radiallahu taala anhu yàlla def fi ma toog nii léegi ma xaatir ne Soxna Xasan Dem mucjizaat la ci mucjizaat si mucjizaat Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu lu tax mu nekk kaawteef ci kaawteefi Cheikh Ibrahima Niass mooy lan mooy cor na képp kuy taalibe baay rek dafay yokk sa mbëggeel ci baay ci wan la ne la kii nga topp mooy ki ñu xaar ndax ni ko waa aalam bi xamee noonu la ko waa aalam bële xam te cor na xasan dem ki ko booleeg baay bi mu koy booleeg baay boobu nekkul ci aalam bi ñi xam waaye man ca xel moo joxoñ corna na ko daman izhab ila Kaolack wa ila alxaaji Ibrahima Niass comme nu mu ko waxee laysa ala kon te alam boobu nag lépp luñ fa wax rek duñ fa mbóosóor duñ fa kaf duñ fa wax lu duwul dëgg lépp luñ fa amul ci kaw suuf damal Kaolack damal ci alxaaji Ibrahima gisul tey ci kaw suuf ku ko gën a xam yàlla mi ne raqitu zur al irfani jubtul mafahisa ila alxadrati al ulya ah! wa lil faydi ahisa waaw yëg naa ci njool laxtaan ak xam yàlla su fekkee xam yàlla man Cheikh Ibrahima ne su fekkee xam yàlla njool laxtaan la garab njool laxtaan mooy la gën a kawe ca garab ga su fekkee ne xam yàlla njool la man yëg naa ca njool laxtaan waaye loolu ki ko njëkk a seedeel bàyyi mooy ka nekk ca xay ndax foofu la fa xew lépp lu fa xew rek dëgg la te dafay xaw dafay xew gaa yi xam ko ñu ne ko demal ci Cheikh Ibrahima moom muy sëriñ muy sëriñ muy nga xam ne moom la Cheikh Tidiane dindoon moom itam ca xay ko te boobu feeñagul mu wax ne nit benn waaye dana feeñ ci kuréel ba àddina bi ba mu daj àddina bi yëpp te duñ ko xam ci àddina duñ ko xam ci àllaaxira kooku na dafay tëggal képp ku bëgg a bàyyi rek nga gën a jàpp kii kii ne kii mooy sëriñ mooy sëriñ bi nga xam ne moom lañ ñëpp doon xaar moom la ñëpp doon xaar waaye ba mu ñëwee feeñal liñ ko doon xaaree feeñal na ko mooy fekkoon na ñépp soxla yàlla mu jox leen yàlla moom Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu kon ñi ngi ndokkeel Thierno Hassane ci loolu nga xam ne may nañu ko ñun bëggkati Cheikh Ibrahima Niass ak képp kuy taalibe Baay di ñaa di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yokku leeral Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mi nga xam ne nag mooy borom. guddi kii waaye mooy borom guddi yëpp nag mooy borom guddi yëpp ndax wa xasra wujudil kawni shayyada baniya waaw loolu la ko bàyyi wax radiyallahu anhu kon moom mooy ñaareel ki amal kawnu mooy ñaareel ki amal ki amal bés yëpp moo tax waaye lu nekk laa fa teraanga la muy bés bi nga xam ne am na ci teraanga boo xam ne bokkum na ci luñ ràññee Cheikh Tidiane moom radiyallahu anhu moom la bàyyi xool di ko xool di ko xool ba ci yàgg ne fa cheikhu afdalu xalqillahi kullihim baada nabiyina wal asxaabi liddiini raamal qutub maqaama cheikhi waqtasaru li bucdi shuqatihi azim bi ilmihi bàyyi mi ne sama sëriñ te mooy Cheikh Tidiane sama sëriñ Cheikh Tidiane bu amatul benn sëriñ ku dul bàyyi rek moom réussir na waaw bàyyi rek doy na ko bàyyi rek doy na ko taalib te bàyyi wax ne ne moom Cheikh Tidiane mooy sama sëriñ nee na ñaari sëriñ laa am sama sëriñ ci za ci zahir mooy alquran ak sunna ci baatin mooy Cheikh Tidiane te du ma tàqalikoo moom benn laxda te wax na ci bànn ñëpp di ko dégg moom Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mi ne toog naa diir bu yàgg di xalaat fan la Cheikh Tidiane mën a jaar ba gën ma ba mën a nekk sama sëriñ mi ne gannaaw gi la ma ko yàlla xamal bi mu doonee sama waasita wasaatatu boobu la ma sutee ba mën a nekk sama sëriñ ñu ne ndax majzuub yàlla dana koy jay lool ci maqaama te wax na dëgg ndax ku nekk ci péeru yàlla boo nga xam ne moom moom lépp mu wan a ne leen li ma am yëpp yow ko jox kooku dëgg-dëgg loolu rek la mën a wax waaye kon sëriñu Cheikh Ibrahima Niass mooy Cheikh Mati ñaara dem moo tax mu ne fa cheikhu fa cheikhu afdalu kulli sama sëriñ di Cheikh Tidiane moo gën mboolem mbindeefi yàlla ñépp nag moo leen dem baada nabiyiina wal asxaabi bi diini gannaaw yonent yi ak seeni saxaaba Cheikh Tidiane moo ci gën ñëpp raamal qutubu maqaama cheikhi waqtasaru qutbu yëpp sàkk woon nañ pour jot maqaama Cheikh Tidiane waaye nag dañoo gàttañu lu tax ñu gàttañu duhun ne dañoo dem ba ci yàgg ah tayal bañ a déedéet li bu'di shuqqatihi ngir sore dégg rek maqaama bi dañoo xam ne kii maqaama kenn mënu ko àgg maqaama bi kenn mënu koo laal maqaama bi kenn mënu koo jot moo tax gaa yëpp dëpp moo tax gaa yëpp dëpp waaw raaman qutuubu maqaama cheikhi waqtasaru li bu'di shuqqatihi azim bi ilmi ah maqaama boo xam ne koo xam ne borom maqaama bi ah maqaamu bu kenn xamu ko ñëpp lañ ko nëbb yow luñ la nëbb foo koy xam buñ dencee dara fan ko denc xamuñ ko noo koy àggee ba koy gis ah te kutinta fi xadaraati lxaqi laysa siwa almuxtaari yadrika laa insun wala maliku kon kooku maqaama boobu kenn du ko xam moo tax xut bu yëpp sàkk woon nañ joti maqaama Cheikh Tidiane waaye bàyyi nee na ñëpp dañoo gàtt ndax soo rek dégg maqaama bi bàyyi ne azim bi ilmi kon màggalal sang bii di Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu junj ko nag ne inna Tidiane sirrul xatmi an kulli qutbin wa ruslin yaasin gayra yaasin mi may wax mooy borom mbootam xatmiya ak katmiya maqaamam boobu nga xam ne dañ koo nëbbu mboolem mboolem xutb yi ak yonent yi ba mu des yaasin bi ma gisee nag ne yow Cheikh Tidiane yaa melloo mello yi yëpp yaa am maqaama yi yëpp yow la yàlla fal yow la yàlla fal te dootoo folleeku mukk yow la yàlla may lim la may man nag ma wax la sama bopp man Cheikh Ibrahima ne inni uhibbuka mushtaqan ilayka aya cheikhi wa jaru dumu'i fika yudni eh yow Cheikh Tidiane dama laa bëgg de inni inni uhibbuka mushtaqan ilayka man dama laa bëgg te dama sopp jëm ci yow ayaa cheikhi e eh yow sama sëriñ te wa jaru dam'i fii ka yutuni sama ronkoñ yi tuuru maa ngi jooy sama ronkoñ yi di génn dem naa jooye jooy ba nga xam ne ronkoñ yi ma lay jooy ngir bëgg gi ma la bëgg dem na ba songa ngan ma man cheikh ibrahima Niass radiallahu kon bàyyi kooku la bëgg muy cheikh Tidiane nga xam ne mooy borom xatmiya mooy borom katmiya te xutbu yëpp ñi ngi ci rooni Cheikh Tidiane radiyallahu anhu kullu faxlin saara najdan mintihaamin aw yamaanin kullu sirrin fi lbaraaya madatuhu sirru Tidiane bépp kuy kuy waaw képp kuy kuy rek mujj nga nekk di doom ci Cheikh Tidiane radiyallahu min yama aw mintihaamin moo xam nga bokku ci tihaama wala ci yow mooy ngay dem wala sàmba ak ku mën a doon rek yaa ngi ci roon Cheikh Tidiane radiyallahu anhu kullu sirrin fil baraya madaduhu sirru Tidiane bépp mbir moo xam bépp mbóot bu nekk ci mbindee fi rek la koy tëpp atta téléphone bi sax dama jël sax di koy tëpp ba mën a jël mbóot Cheikh Tidiane micro bi li koy waxloo mbóot mi koy waxloo ba mën a wax nit di ko dégg mbóoti Cheikh Tidiane radiyallahu nit ki compte nit kuy kontaan di wax di yëngatu da ko yëngal booti Cheikh Tidiane radiyallahu bàyyi ko waat man waxuma kullu sirrin fil baraaya madaduhu sirru Tidiane madaduhu sirru Tidiane kooku moo tax bàyyi bëgg ko radiyallahu taala kooku mooy borom xatmiya kooku mooy borom katmiya radiyallahu moo tax kenn du moom kenn du moom te kenn du ko doon ba pencam yàlla loolu moo tax góor ñi bëgg ko góor ñi képp koo xam ne. yàlla may na la rek nga am basira rek boo ñëwee rek ci Cheikh Tidiane ngay làpp boo ñëwee rek ci Cheikh Tidiane ngay làpp bàyyi bu ñëwee dafa làpp Cheikh Tidiane radiyallahu anhu xam ne ah, ma ci góor gi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko anta waladi xaqan anta waladi xaqan xaqan jox ko mboolem may yi nga ko jox moo tax Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu ma ñëwoon nag tey ndax xam nga suñ bàyyi Cheikh Mouhamad Dramé man barki démb rek la ma démb rek la ma bàyyi wax ne ma ah yaay ñëw ci programme bi sëriñ bi nee na yaa koy def de Cheikh Moussa Oma ne ma bàyyi Dramé nee na yaa koy def xamaate ma teg ne dañ maa invité rek ndax bu ma invité woon sax damay ñëw ndax sama waajur la ndax bokk na ci ñi ma yar ma ne bu ma demee damay jël benn xasida ci xasida bàyyi rek ma firi ko damay jël benn xasida ci xasida bàyyi rek ma firi ko ci guddi gi loolu laa tax dinaa ci barkeelu tuuti ndax loolu moo doon sama yéene pour ma def ko muy kaana li cheikh min karamaati xawmin بائرات النار بهذا الماضون كان للسيق من كرامات قومه بائرات النار بهذا الماضون تاريخات الإمام أكثر من آن تضيع أم يعطي بها البرخاء منه أن كان تابعا نجح به ليس أنه كسوفه وزرعه منه أن كان مالك خلق الدرر منه أن كان مالك خلق الدرر آخر عمره زعمه منه أن كان تابعا نجحاني ليس عنه منه أن قال طه أنفي بلالا منه أن قال رب ثلاثة ناصر صدق آمن كل يوم جمعة أو من غيره لا دواء قول سيخه كترك مال رسول دون إذن وليس فيه غباء هذا من برد الموت مهابا نال منه مراله قرماه إن هذا إمامكم ثم هذا نال منه مراله قرماه ستة من جبين له قد نفى رأت منها لخفة الأنام كان للشيخ من كرامات خوفه باهرات ضاعت بها ne kaana nekk na li cheikh ñeel sëriñ bi min karamaati xawmi ci karamaay ay góor ci karamaay góor ñi karamaay góor ñi waaye bu waxee góor ñi nag góor ñi la ci tudd waaw bu waxee góor ñi sufiyanke yu mag ñi la ci tudd ñoom bu ñu waxee xawma rek am na ñu ci tudd mu ne cheikh Tidiane radiyallahu am na ay karama yoo xam ne baahiraatin def na gëlëmal daat def na leer bi haa ci moom afdal maa wala baahiraatin yu yéeme baahiraatin yu yéeme daat yoo xam ne def na leer bi haa ci moom afdal maa wala Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mi moom guddi gi yàlla may na ko ay karaama ay karaama aw góor yu yéeme yoo xam ne karaama yooyu dafay leeral lëndëm karaama nag Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu waaye may-may yàlla la da ngay def lii def lii ñu may la ay karaama déedéet waaye yàlla mooy xool ci jaamam lu ko neex rek mu may lu ko neex nag mën na ko maye ci karaama bépp karaama du feeñ ci nit rek du fay fay yàlla waaye may-may yàlla. te su fekkee ne ku bëri de te bu mayee dara du wàññeeku mën naa maye lu nekk suñu waxoon ne diw kat may na diw ñaari junni su fekkee am na lu mat kenn ko nit buñ ne diw may na diw téeméer te ñu gis ne waa ji amul sax lu ma téeméer kon ñëpp koy wetti kon yàlla li maye karaama yi may ko Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu kon dëgg dëgg du ay fay-fay waaye ay may-may karaama nag mooy li nga xam ne yàlla daf koy feeñal ci ab ab wëlliwoom comme ni koy feeñalee ci ab yonent Cheikh Ibrahima Niass radiallahu wax na ne bépp kaawteef boo xam ne jaadu na ñeel ab yonent rek na ñeel ab wëlliwoom waaye yonent nag lu leen wutale mooy yonent yi mën naa def mën naa def karaama ne lii man maa ko def ku ko mën a def na ñëw waaye sañu ta nga def Cheikh Tidiane nag karaamam yooyu nga xam ne karaama yéeme la dafa leeral lëndëm mooy lan képp koo xam ne dangaa jéngoon wétti Cheikh Tidiane radiyallahu anhu buñ la nettalee ay karaamam loolu mën naa dem ba lënd ba leeral sa xol bi nga xam ne moo lënd ko waaye buñ la ko nettalee yow mi nga ne bëgg nga Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu loolu dana yokk sa mbëggeel ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nga xam ki nga topp nii mooy kat moo tax bàyyi ne kaana li cheikhi min karaamaati qawmi baahiraatin daat biha al-zaman xaariqaatul imaami aktaru min antu a antu a antu a antu seen aw yaati biha al ulaqaa kaawteefu Cheikh Ndiaye nag radiallahu anhu muy imaam bi bëri na bëri goo xam ne kenn mënu koo takk nit ki wala loo fasaaxa fasaaxa loo am balaa ko balaa ko mënoo kaa dikkee mi ne min bu bokk na ci an kaana taabian nahji haadin laysa anhu yaxiibuhu wasdara bokk na ci karaamaay Cheikh Tidiane radiallahu mooy topp ci topp sunnaa yonent bi sallallahu alayhi lu ñu bëri bàyyiwul xel léegi topp sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu karaama ndaxte nekku ne kum neex rek moo a topp sunnaa yonent bi sallallahu alayhi topp yonent bi ci mbooleem jëf topp yonent bi ci mbooleem ay wax lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan nga def ko lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ko nga bàyyi ko loolu mooy topp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam cheikh Tidiane nag bokk na ci karaamaam li ci bàyyi njëkkee mooy mu ne topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moo tax nga gis góor yàlla yu bëri di ndamoo loolu pour topp giñ topp yonent bi sallallahu alayhi bàyyi wax ne nag isa saara xayru sirtu waraahu wa in xalla yowman fal masiru baid fan masiru baida yonent bi gën ci nit bu doxee rek ma dox topp ci gannaawam te bu taxawee dox dafa kon ñu ne bokk na ci karaamaay Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mooy topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom ibnu baaba ne minhu a minhu zalika ittibaauhu li sunnati wa hiya lada rijaali xayru mi ne bokk na ci karaamaay Cheikh Tidiane mooy topp gim topp sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te topp sunnaa yonent bi moo gën a nekk xéewal bu gën ci góor Cheikh Jaare nag radiyallahu anhu ku toppoon sunnaa yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na minhu an kaana maalikul xalqi turan gaafiran ahla asrihi zanama bokk na ci ba tey wala laysa laysa yaqimu anhu Cheikh Tidiane bokk na ci ba tey yonent boobu mu topp sunnaam yonent bi mosu koo far laysa yaqibu an Cheikh Tidiane yonent bi mosu koo far waxtu wu nekk danaan gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ne woo wër xaraab loolu koom bu mag bokk na ci ba tey ci karaamaay Cheikh Tidiane mooy yàlla mi nga xam ne mooy buuri mbindeef yi maalikul xalqi turan gaafiran ahla asrihi zaadama yàlla mi nga xam ne moom moom jaam yëpp ñooñ jamonoom ñëpp képp koo xam ne dunda ngaa Cheikh Tidiane ci jamonoom nga bëgg ko rek wala nga bokk ci jamonoy Cheikh Tidiane délee gisoo ko sax waaye li nga dund ci jamono ji rek yàlla baal na sa mboolem bakkaar yàlla baal na la sa mboolem bakkaar kon loolu ci karaamaay Cheikh Tidiane la bokk ba ci borom Ibnu Baaba mi ne gannaaw ba Cheikh Tidiane wëyee dolli nañ sax ñaar fukki at yoo xam ne gannaaw Cheikh Tidiane ba ñaar fukki at ku dundooti ku dundooti ci gannaaw loolu rek yow yàlla ci gën a la say bàkkaar loolu karaama bu gën a rey ndax am yàlla baal sa ñun jamono yëpp bàkkaar bu mën a def yàlla jéggal na leen waaye tam boo dëddoo àddina ñaar fukki at sa gannaaw képp ku ko juddooti rek yàlla baal ko ay bàkkaar loolu ci karaamaay Cheikh Tidiane منين بكرة أن قال طه أنفق بلالا منه أن قال رب hadal atal bokk na li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon Bilaal ko anfiq Bilaal wala taxsha min zil arsi iqlaalan loolu cheikh ci karaamaay cheikh Tidiane mooy yonent bi wax na Bilaal ko dund leen mu ragal mu ko ñàkk cheikh Tidiane loolu loolu karaama a na ci an qaala rabbu hada ataaw bokk na ci la yàlla waxoon yonentu yàlla Suleymaan ibnu Daawuda ne ko Eh, eh, eh, yàlla ba mu ko wanee may yëpp ne ko haada ataawuna fam aw amsik bi xayri xisaabin nga xam ne suñ mayee ko yàlla may na la may boo xam ne kenn xamul fu mu toll Cheikh Tidiane radiyallahu anhu loolu am na ko mayam kenn xamul fu mu toll bokk na ci naadiru cheikh amin kulla yawmin jumaatin aw min gayrihi ila sawa bokk na ci karaamaay Cheikh Tidiane képp koo xam ne gis na Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bépp bés muy bési àjjuma wala lu dul bési àjjuma boo ko gisee sa yaram xaram na safara sa yaram xaram na safara boo gisee Cheikh Tidiane bési àjjuma wala bési altine rek sa yaram xaram na safara te loolu Cheikh Tidiane yàlla may na ko ko loolu Cheikh Tidiane yàlla may na ko dafa am ci tariqa bi lu ñu tuddee si ruya loolu ñu ko am ñëpp ci Cheikh Tidiane lañ ko ndax moom la ko bi wala nga bis gis ko bisi altine rek sa yaram xaraam na safa moo tax nettali nañ ne Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu na ko topp et rek mu dabbaay waxoon na ko yaa Cheikh fashhad li bi anni raaytuka yawmul jumaa yow sëriñ bi seedeel na man gis naa la bési àjjuma heure bu bàyyi jullee àjjuma ba pare rek moo ko benn bés moo ko bàyyi rek bàyyi gëstu ko ne ko ayaaw naa kulluha àjjuma ñun suñ bés yëpp àjjuma bés boo ñu mën a gis rek sa yaram xaram na safar waaw moo tax ne wa man yuhibbuni wa man yaraani fi jannatil xulti bila buhtaani ah lu tax id annani xalifatu tijaani mawhibatan min ahmad al abdaani mu ne ku ma bëgg man Cheikh Ibrahima Niass wala nga gis ma yaa ngi ci aljana yi benn ci dudul benn lu tax fa Cheikh Tidiane taxawoon ba wax ne képp ku ko gis ajjuma wala aljana sa yaram xaraam na safara tey di Cheikh Tidiane moomu man maay xalifa mbóot mañ ko joxoon tey man la indi nii xalifatu Tidiane te loolu nag mawhibatan min Ahmad al Adnani kon bàyyi moom ah, Cheikh Tidiane moom radiallahu anhu bokk na ci karaamaam yàlla may na loolu bokk na ci karaamaay Cheikh Diané xawlu cheikh ka tarjumaani rasuli duuna ifkin wa fihi xafa bokk na ci karaamaay Cheikh Diané mooy lépp loo xam ne wax na ko rek wax yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni tarjumaani yonent bi mooy daf koy làppatoo loolu ci déggee mooy lépp loo xam ne Cheikh Diané wax na rek. dugul ne Cheikh Tidiane moo ko wax waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko wax Cheikh Tidiane jottali ñu ko moo tax xawlu cheikhi ka tarjumaani rasulin duna iskin walaysa fiihi walaysa fiihi xafaaw moo tax lépp lu mu wax rek dëgg la te yonent boobu la yàlla wax ci alquran ne wa maa yantiqu ani l-hawaa haa'izu min bari ladaa yawmi jam'in zumma yarqaa lahu alayhi istiwaahu bokk na ci karaamaay Cheikh Tidiane keroog péccam yàlla dana éeg ci minbar boo xam ne minbari leer la dana ci éeg minbar boo xam ne minbari leer la mu toog ci moom Cheikh Tidiane keroog ba nga xamee ne péccam yàlla ñëpp dajee na bu fa toogee nag zumma naada ala alxalaiqi naadin ahlal al asri taaba minkum hanaaw ñu oote nag aji oote oote xam naa sëñ Dramé dana ma wax kan mooy oote bàyyi bi ne ak oote oote ne xéey ñuñ pàng mi seen eh, eh, teegeen war na leen wax leen ne ne inna hada imaamukum zumma hada naala minhu ma naalahu kurama mu ne imaam bii kii kii nii mooy seen imaam kii nii ki nga xam ne lépp lu ngeen amoon ci ay may rek moom moo kon nga déggee ci ne bépp wëllu yàlla rek bu am ay may rek may gi ci Cheikh Tidiane nga ko jëlee boo ko yëgee ak boo ko yëgu borom yu nu baawaa ne haada pencam yàlla dañ doon ne haada imaamukum wa daa mumittukum fi daari dunyaakum bi xayri ilmi mooy seen imaam mooy ki leen daan tëpp ci kër ak àddina te xamoo leen ko sax kon bëri na boo xam ne wala lii boo xam ne ñu koy màggal tey ci kaw suuf ki ko tëpp may yi mu am yëpp Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moo ko tëpp te moom sax xam ndax i daari dunyaa ko bi xëy moo tax pëncam yàlla gaa yëpp nag buñ wëlbatikoo gis ne ah kii mooy Cheikh Tidiane mu doon dégg radiyallahu anhu ne ko may bi doon am yëpp ci kii lañ ko jëlee foofu lañ koy xamee nag radiyallahu taala wa daa bàyyi nag inna haada imaamukum zumma zumma haada naala minhu ma naalahu lkurama sittatun min miinin la wudina sha'ratun min minha la xaffati lawliyaau tilka min sahbi cheikhi faajib bi qutbin haada sabqan ashaabuhu al asliya qadama cheikhi fawqa arqubi qawmin kulla asrin siyaadatul aqsa Baay radiyallahu taala mu ne taalibe bi ne juróom benn téeméer ah ci ay xutb buñ leen dajale woon leen ci benn baskile teg jël benn karaw ci karaw yi taalibe Cheikh benn karaw moom dana leen kon nag moo tax borom Ibnu Baaba ne fa kayfa bil imaamil fard fa kayfa bil imaam il kon nag naka ki nga xam ne nag may gi yi am yëpp ci moom lañ ko jëlee te Cheikh Jaani moom bàyyi ne xadama cheikhi fawqa arkubi qawmi ñaari ndëkku sëriñ bi mi ndoddal bépp góor ku la asrin bépp jamono nag nekkul jamonoom def comme ni ko Abdul Xaadir Jeylaani amee na xatami te boobu ci wëlli jamonoom la doon wax waaye nag Cheikh Tidiane kulla asrin bépp jamono loolu nag siyaadatun ak sang la xabsa u bay aji kon Cheikh Tidiane moom yàlla may na ko min karamaati cheikhina tayyu ardin wa tarakibu lismi kayfa yashaau bokk na ci karaamaay Cheikh Tidiane mooy lem suuf loo xam ne distance bi mën na deux cent kilomètres Cheikh Tidiane mën na koo dem ba mu nekk benn kilomètre loolu yàlla may na ko jël turi yàlla toggale ko lu bëri ci personne yi ngeen dégg daanaka lépp Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moo ko def taafati lkaabatu sharifati bi cheikhi adidan yahaba hada al ataau bokk na ci karaamay Cheikh Tidiane radiyallahu mooy ah, kaaba gi daf daan ñëw di wër Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nit ñi ñooy dem aji de di wër kaaba bi waaye Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moom kaaba bi mooy ñëw wër ko ànd ak nag dem na màkk ba mu amee 36 ans 37 dem na aj màkk waaye lépp kaaba bi moo daan ñëw di ko fekk loolu la bàyyi waa taafati cheikh طافت الكعبة الشريفة بالشيخ عديدا يا هبذا هذا العطاء كشف الشيخ مطابق الواقع lamma axbara cheikhu ma bihi iftiraahu bokk na ci karaamaay cheikh Tijaan mooy lépp loo xam ne waxoon wax na ko kësu na ko wax ne lii dana am rek bu ñëwee nam ko waxee noonu lay amee moom cheikh Tijaan radiyallahu wastiraafu limaami kaana amiman fihi amri lgadaraau walgabaraau bokk na ci karaamaay cheikh Tijaan mooy soppandikoom bu defee bu defee tasrufaat dafay matale lépp waaw bàyyi ne kam lahu min igaazatin li garibin kam lahu fi ilfi siqaami dawaaun bokk na ci karaama Cheikh Tidiane boobu bëri na ci lim daan xettali koo xam ku tumuranke la Cheikh ma Tidiane radiyallahu anhu ko nga tumuranke ci àll jaaxle doo xalaat kenn dimbale la nga oo Cheikh Tidiane Cheikh dimbale la radiyallahu taala anhu moo tax ñaareel ku dara dar rek booy daanoo ne Cheikh booy demee bay tar li ne Cheikh Tidiane lu dem ba leewal di nga ne Cheikh Tidiane ndax xam nga ne Cheikh Tidiane mooy jikko loolu di dox ba muy war mbuut mu koy doxal mbuutam Cheikh ko kettalikoo ci Cheikh Tidiane mbuut moom dana taxaw ah, moo tax kam lahu min ixaadati li garibin kam lahu fi ilfi siqaami dawaahu bëri na Cheikh Tidiane boo xam ne dafa feebaroon feebar yoo xam ne kenn mënu koo faj Cheikh Tidiane ñëw faj كم أكم أعز الإمام سوقة قوم كم أزلت بظلمه الأمراء برينا شيخ جان رضي الله عنه كو خامني اب بادو لا وون mu mujj def ko ba mu tedd bëri na koo xam ne yëpp nga Cheikh Tidiane jéem a fontoo Cheikh Tidiane nga mujj toro kon Cheikh Tidiane képp koo xam ne bëgg na ko loo suufe suufe da nga mujj yëkkatiku ngir bëgg Cheikh Tidiane moo lay yëkkati waaye képp ku ko bañ moom Cheikh ma Tidiane ak koo mën a doon ak ku la mën a jur ak loo mën a am nga bañ Cheikh Tidiane koy mujj torox rek ngay mujj laajat ibnu maaya ba ak nga mel ni moom kam ata bil xaysi mariixi li jëppin su witat min muxooli al xarqaa bëri na Cheikh Tidiane bekkoor am nit ñi taw amul gàncax gi wow ñëpp bekkoor ci lu mën a doon Cheikh Tidiane ñëw xet ci indi taw boo xam ne bekkoor ba fa nekkoon lépp lay def bëri na Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ah loo xam ne lu néew la woon Cheikh Tidiane radiyallahu anhu laal ko rek mu mujj bëri bàyyi nag ne saanahu llahu an muaadin xasuudin haaba ah, cheikhi muluuku ahaba cheytil muluku wal aadaau ba yàlla nag ñoyeen na Cheikh Ndiaye radiyallahu anhu ci ay noonam ak ñi nga xam ne dañ koo bañoon yàlla ñu ngeen na ko ci ñoom ba nga xam ne mënuluñ Cheikh Ndiaye dara ndax ay noonam buñ ko mënaloon dara kon ba muy dund effacé nañ ko rey nañ ko waaye mënuñ ko waaye ay noonam buñ ko mënaloon dara kon Cheikh Tidiane mu ëpp tey ci àddina ñu koy wéddi waaye tamit mënul ci mbir mi dara bët bu set ñi bëgg Cheikh Tidiane ñi gën a bëgg Cheikh gën a bëgg Cheikh Tidiane radiyallahu anhu kon yàlla ñu ngeen na ko ci ay noonam ñu xañaan ba nga xam ne dara lañ mënul Cheikh Tidiane radiyallahu anhu haaba cheikhi ah, haaba cheikhi muluku wal aada bàyyi ne buur yi dañoo ragaloon Cheikh Tidiane dañ koo wegoon waaye ay noonam it dañ koo dañ koo wegoon daawatul misla baatiri sayfi daawatul xayri duuna al anwaar Cheikh Tidiane radiallahu bu ñaanee moom Cheikh Tidiane bu ñaanee ñaan goo xam ne nit daf koo doon bu ko ñaanee dafay mel ni comme jaase ju ñëw ni muy daggee ko noonu lay ñaanam di gaaw a nangoo comme mais mu tekki ne ne daawatul xayri duunaha duunaha al anwaaw noonu it bu ñaanee yiw noonu lay gën a gaawee bàyyi ne nag ah, yarzuqu llahu ahla ataahum raqsu cheikhi ki anat lahum nuqabaaw yàlla na pàkk boo xam ne barkeb Cheikh Tidiane dikkal na yarzuqu llahu wërsëgal na yàlla ñan aala magnan ñuñ pàkk ba nga ataahum dikkal na leen raqsu cheikhi barkeb sëriñ barkeeb sëriñ sama anat lottal la lahu ñel ko an nuqabaabu nuqabaaba jaani radiallahu kon bàyyi nañ ne foofu la xasida bi jeexee bàyyi nañ yàlla wërsëgal na pàkk boo xam ne cheikh jaani dikkal na kon pàkk bi ci loolu la bokk ndax su fekkee ah, suñ bàyyi cheikh mouhamad daraami mi la ci doomi cheikh jaani radiallahu anhu ndax cheikh torna xasan am na cër bu law law law ci Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu kon Thierno eh, Cheikh Dramé mën nañoo wax ne doom la ci doomi Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu kon bu ñëwee ci pàkk bi te imaam wax na tey ne indi na fi loo xam ne lii mosu fee am indi na fi loo mu indi fi tey di toog di màggal Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci guddi gu màgg gi loolu dëgg-dëgg gan bu baax. dëkkandoo bu baax moom moo ko fi kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla may ñi barkeb Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu ñu ngi ñaanal suñu bàyyi Cheikh Mouhamad baax la waajur bu baax la waajur bu lewel la waajur ñun dafa bokk ci ñi nga xam ne moom moo ñu yar ndax man sax ñu bëri ci njëlbeen dañoo tegoon ne Darame mooy sama sëriñ moo ma tarbe ngir lan nekk gi ma nekkoon këram guddeeg bëccëg suba ngoon këram rek laa daan nekk guddeeg bëccëg bëri na ay téere yoo xam ne moom moo ñu ko doon liiral ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam ko wér mënuñ koo fay man de mënuñ koo fay moo tax papa rek laa koy wax ndax li mu def ci man tey jii dem naa tey bay téye micro sëñ Daraame moom njëkk a jox micro na ma wax te loolu yàgg na ne 2002 man na fukki at ak juróom-ñett kon a toll kër Baara Seydou Saïd mi ma ko ma ngi ko woon ci jamono yooyu nekk fa moom ñi def daayira ba pare mu yëkkati micro ne ma waxal wax mi ne ne ma waxal ndax da nga mu jox ma ko 2002 kon kuy dimbale ndaw la dafay dimbale ndaw loo nekk ndaw ndaw danga la encouragé wan ne lii mooy si ku baax la doo xàmmee dara melam ak kontaan man de mosuma xam dara meram ak kontaan mosuma kaa xam lu mer mer mer boo ko gisee da ngay teg ni dafa kontaan kon kooku kon noo koy xamee moo tax dafa jëfee xam du wax gaañ nit daraame sëñ daraame du wax gaañ nit mës na wax loo xam ne nit nit mën na cee gaañ du ko wax taalibeem du ko wax soppeem du ko wax njabootam du ko wax kenn boo toogee moom booy wax ci diw xam ne safaan la daf naan ah ah ah seetal ma loolu ndax dafa ma seetal ma loolu pour bëgg yow nga bàyyi li ndax li intéressé wu ko ah. mu nekk ku yéeme dara du xew mu wax ci Cheikh Moussa dem na dafa ma firi benn béy ci bàyyi ci conférence bi mu doon def fële ci zaawiya mu ne bàyyi dafa wax ne wa yucjibuni sultu tawil fa innahu dalilun ala al irfani wal xaalu mubin bayti boobu li ma koy jàng yëpp démb laa ko soog a xam nga ñin luñ ko jàppee firi bi mooy bàyyi ne yéem naa noppi goo xam ne noppi bu yàgg la dafay tegtal ne waaye ji ko xam na mu ne loolu mooy lan noppi ci lan la mooy noppi boo xamee yàlla dëgg-dëgg xam lépp lu yàlla feeñal rek da nga ciy noppi ndax xam nga ki ko def da noppi da noppi moo tax mu ne yéem naa noppi kooku lu tax mu noppi mooy lii xew nii wax ji am tey wala jëf ji am tey ki ko jëf xam nañ ko ki wax wax ji xam nañ ko ndax su fekkee na bàyyi dafa ne ida kaanati aqdaar min maalikil mulki fa siyaani indi maa yu siri maa yukki fekkee dogal ci yàlla la jógee kon koy du neexee lu naq yëpp moo ko def kon nag noppi ci jëfi yàlla lépp lu mu def rek nga noppi ci mu ne man noppi boobu bàyyi na wa yujibu sumtu tawil ndax fa innahu dalilun ala al irfani dafay tegtal na yow xam nga yàlla ndax xam li nga xam yàlla ci nga xam ne lii jëfi yàlla nga noppi ci wala si nga wax sëñ daraami nag foofu la nekk sëñ daraami foofu la nekk moo tax du di du diingat kenn sëñ Dramé du xas kenn weddiwul xaali kenn xaal boo ñëw rek moom nangul nan ak boo mën a doon comme ni ko Modou waxee léegi xaal boo mën a doon man dama yaroo ci kanamam xam ñi fa daan ñëw xam ay nit ñi fa daan ñëw ñoo xam ne sëñ Dramé defar na leen a defar defar bañ baax ba bu ngeen waxoon kii diw mii njëlbeenam lii la woon da nga lii mën saa te ñim defar bëri de ñim defar bëri na ba mu dalee defar bëri moo tax lépp lu mu am ci faydu rek yem na yal na yàlla guddal fanam yal yàlla mooy ko wér muqaddamam bu bu mag cheikh kii ah muqaddamam kii wa Baye Ousmane wax na ne ki Baye Salim wax na ne nañ ko ñaanal yàlla gudd fan nañ ko ñaanal yàlla ñu ngi lay ñaanal yàlla yal yàlla guddal sa fan yal yàlla may la wér yàlla nga dund téeméeraat ñu soog laa ñaanal dund Ah, xam nga lii nga def ma nii man nga ko kenn dàppul la wax ci Cheikh Tidiane radiyallahu ndax yow doomi Cheikh Tidiane te Cheikh Tidiane moo fees tell la ko nandal moo tax kon kenn waaye da ngaa baax mën a encouragé ndaw loolu rek moo tax nga yëkkati nii nga cërilee ñu ko yàlla yàlla fay la yàlla yàlla yokk la ci barke Baay yàlla yàlla guddal sa fan yàlla yàlla may la wér yéen taalibe yi xam ne yéen a aju ci moom da ngeen góorgóorlu bu baax ci moom ndax moom wan li umalaamiyatu la ndax dafa nëbb kenn xamul ko du moo ko xam du ay sëriñam mu bëgg ak lu mu bañ yal yàlla dëgëral la ca Seydina Omar waxoon na yonent waxoon na Seydina Omar ne ko ne ko Omar ne ko kaadal xalimu an yakuna rasulullah tuutee des ku lewet nekk di ab yonentu yàlla si sëñ Dramé ku lewet la yàlla na yàlla fay ko yàlla na yàlla dëgëral ko taalib yi góorgóorlu leen bu baax ci moom góorgóorlu leen bu baax ci moom képp ku ko defal ak loo ko mën a defal doo ko réccu njëriñ la rek ñeel la yàlla fu yàlla yàggal ci barke Cheikh Ibrahima Niass ñi gërëm mboolem fi teew ay muxaddama ñi gërëm imam nga xam ne moo doon président Ansaru Diin fële nekkal bàyyi fële ca eh, ca Italie nga xam ne bëri na ay liggéey yoo xam ne sémmu nañ ko lépp ci loxoom la doon jaar ndax fenkante nañ fële kër bàyyi mu wax ma jaar yi jaar ak li liggéeyal bàyyi ak li jaar ci moom yépp ci bañu liggéeyal kër bàyyi ñu koy ñaanal yàlla yàlla fay ko ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Tidiane radiyallahu anhu barke Baye ñuy gërëm mboolem ñu fi teew ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp yal yàlla yokku leen ci zahir ak ci baatin képp ku fi teew soxla boo mën a am yàlla na ko yàlla nangu imaam wax ne ne guddi gi ñaan yàlla la képp ku fi ñaan yàlla dina ko nangu moodu o moodu ne képp ku fi toog naan sëñ daraame sëñ daraame rek sa aajo dina fay te loolu dëgg bi mu bi mu ko waxee billahi laa ilaha illa tudd naa sëñ Daraame fukki yoon ak ñett ndax damaa bëgg sama soxla ma ne sëñ Daraame sëñ Daraame sëñ Daraame sëñ Daraame sëñ Daraame sëñ Daraame sëñ faj sama soxla ndax xam naa ne aarifu billaahi te man damaa ragal xaatil moodu lépp lu mu xaatil rek dafay lépp mu xaatil man dafa am fu mu fuñ jaar maag moom mu xaatee dara na nga ko xaatalee moom moo tax bi nga ko man ma def ko man def naa ko def leen ko seen aajo faju asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu